faalu la yàlla faale nan wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi am mbégte di toog ci jataay boo xam ne jataay sant yàlla la santaat sëriñ tubaa xaadim rasul feddaliwaat sunu yaakaar di ñaanal sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal te doole ak wéram waaye ñaanal sëriñ aboo Baraka ak mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadul Fadal gépp suñ boroom may leen fan wu gudd wu ànd ak wér yaram di nuyu ak a nag mbooleem fu aw turandoo mën a ne di turandoo Cheikh Mouhamadul Fadal ñu toog fii ci kër sëriñ fallu moom sëriñ Modou Faty xari Mbacké ànd ak sëriñ Fadilou moom Cheikh Mouhamadou Mourtada ak Cheikh Mouhamadou Mourtada moom Cheikh Mouhamadul Fadal ak mbooleem nag turandooy sëriñ Fallou yi nga xamante ne bii ñoo ŋànk fédération bi lëkkale turandooy sëriñ fallu yëpp ngir lan nag waajal ziyaara bu mag bi nga xam ne at mu jot turandoo yi danañ ko amal te di ko amale ca Ndindi ren jii nag ñu jàpp ko samedi fukki fan ak ñaar ci weeru novembre di ame ca Ndindi loo tax mu toog ci jataay bi fas yéene yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ fallu Ndiaye say fay mi nga xam ne mooy wax ci turu waa section bu Touba su noppee danañ jox kàddu gi sëriñ fallu Ndiaye mi nga xam ne mooy wax ci turu Serigne Mbacke Serigne Fallou moom Serigne Abdou Fatah ci turu waa Ndindi gépp suñu noppee danañ jox Serigne Fallilou moom Cheikh Mouhamadou Mourtada moom Serigne Fallilou mi nga xam ne mooy wax ci turu bokk yi suñu noppee nag danañ jox Serigne Fallou Ndiaye programme mu leeral ñu programme bi na muy tuddee su noppee ñu jox Serigne Fallou moom Serigne Modou Fati Khari miy wax ci turu Serigne Fallou moom Cheikh Mouhamadou Mourtada ñu bokk yi ñu xam ne kon woote bi le 12 novembre lay doon incha allahu rabbi di amee ca Ndindi. ci teewaayu Serigne Abo Baraka ak mboolem njabootu Cheikh Mamadou Fadal gépp waaye bokk yi xam nañ ne it Serigne Fallou moom Cheikh Mamadou Mourtala di njiitul turandooy Serigne Fallou yi màggaluk Serigne Mbacke Mor Anta Sali gi may amal ca Deqale le 12 euh, février incha allahu rabbi lay am kon nag mi ngi koy fàttaliwaale turandoo yëpp te di ko waajal incha allahu rabbi. woote bi nag ñu di ci dellusiwaat muy siyaare général bi nga xam ne dañ ko daa def te gëjoon koo def 2019 lañ ko gëjoon a def. ñu demaat ci sëñ abo mu joxaat nu ndigal ñu war koo def le 12 novembre kon ñun waa section Touba ñu ñi ne ñoo war a dalal gan ñu ngi leen ci soññ foofu section mën ne ci Touba ak Mbàkke du ko wër ñu ngi lay soññ ci bis boobu nga xam ne ci lañ dëgmal nga mobilisé wu ñëw te teel ñi nga xam ne section yi nga xam ne amoon nañ versement ci kastroyeb eh, bi ak ñi nga xam ne jotuñu woon a verse ñu ngi leen di soññ ñu indaale seeni i versement te teel bu ñëwee laaj sëñ Fallou Gaye muy euh, secrétaire bi buñ ko laajtee dañ ko gis kon ñu ngi soññ ñëpp ku turandoo wu aji ci Mbàkke Tuubaa di ko wër daal nañ xam ne ñun ñooy teeru gan ñoo leen di dalal ñu ngi leen di soññ ñu teel a ñëw bu ko dee ñu teel a liggéey bi ku ñëw fekk nu ci kon ñu ngi soññ di soññ sëñ Fallou Gaye sëriñ Jaxate sëñ Fallou Ndiaye Isine sëñ fallu Thiam sëñ fallu Sall ak sëñ Fallou Mbodj ak sëñ Fallou Kane ñu ngi ñooñu di sant bu baax ndax liggéeyu section bi fu mu mën a rek fu mu mën a àgg ñoo ci jàpp ba mu àgg fa. ci turu Cheikh du Fadal moom Cheikh Abdou Fata mi nga xam ne moom la waajuram wa sëriñam ba Cheikh Modou Moustapha Fallilou joxoon ndigal ci yow ak waa Ndindi yéenay dalal gan ñi ndigal loolee di wéy ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ak Cheikh Mouhamadou Serigne Abo ibnu Cheikh Ahmadou Fadal mi fi nekk di ñaan yàlla suñu borom mu guddal fanaan te wéral ko ndigal loole moom la ñuy yeesal mu ànd kook waa Ndindi gépp ci ndigalul sëriñ Fallou Ndiaye chef de village ak sëriñ Sewru Sey imam ànd kook waa Ndindi gépp góor ak jigéen mag ak ndaw nañ xam ne ndamul Cheikh Modou faadal mooy seen ndam ñoom ñëpp kër goo xam ne daanan fa dalal gan na xam ne na bàyyi xel ne la daan dal bu ko ëppatit lu toll noonu dana fa dal kon nañ génn néegi yaatal gan ñi dalal leen bu kenn am lu ko naqari nañ taxaw te xam ne ndigal la ndamu sëñ Fallu mooy suñu ndam ñi nga xam ne ñooy ne ci waañ wa góor ak jigéen maa nga ndaw ñëpp nañ teel a génn ndax li ëpp ci eh, ci ci ci mbooloo mi ay tuut tànk la ak jaboot te loolu añ bu teel dafa baax ci ñoom kon nañ teel a génn jàpp ci liggéey bi bu kenn eh, koo xam ne ñëw na am lu muy laajte nañ yaatal dënn yi dal tegtal ko ba ba fa mu war a dem mu dem fa nañ xam ne liggéey bi ñoom ñoo ko yor ñëpp nag nañ génn maase àndandoo topp ci ginnaaw Cheikh Amadou Fadal moom Cheikh Abdoul Fatah ndax ndamam mooy suñu suñu ndam. ñuy yëkkati kàddu yi nag muy kàddu ndigal boo xam ne lépp ñu ngi koy teg ci kaw ndigal muy woote boo xam ne ku nekk xam ne ne woote la boo xam ne yàgg nañ ko woote ci jamonoy Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Fadal di ñaan yàlla mu yokk ay maqaamam. mu wàcc si ba ci Cheikh Mouhamadul Amin euh, tey nag ki toogee jataay muy sëriñ Abo di ko ñaanal yàlla mu mu mu mottali ci barke Cheikh Mouhamadul faadal bi ñaanal mbooleem njabootu Sëñ Tuubaa gépp di ci woo nag mboolem koo xam ne mooy ahlu Mbàkke ñi nga xam ne ay mbokk lañ muy buntu kër yi nga xam ne Sëñ Fallu dafa cëroo ci ñoom ñu tudde leen Cheikh Mouhamadul Fadal ñu ngi ciy woo ñëpp di leen wax ne bis bi seenu bis la ndax ñoom lañu koy defal kon képp koo xam yaa ngi dégg suñu kàddu rek te bokk ci njabootu seexul xadim te sant Mbàkke ñu ngi la ci woo di leen wax ne bis bi seeni bisa bi ñaan ci kàttanu suñu borom ñu àggale lépp ci jàmm te teewe ko at yu bëree bëri waaye di fàttali rek ñi nga xam ne ziyaara bi niñ ko waxee la douze lay doon ci ndindi kër Seex Moodu Fadel ga ci ndindi niñ ko daan wootee rek ñi ngi sàkku ñëpp rek ñu teew muy góor jigéen mag ndaw fàllu mu góor fàllu mu jigéen fu fàllu nekk rek ca man ca daan ñëw ak ca daawul ñëw ñëpp nañu ñëw ñu ngi woot ñëpp di sant ñëpp di ci fàttali nag ñi nga xam ne ñoo région ñoo nekk ci région yi muy section yi nga xam ne nekk nañ ci région fu région mën a nekk section ba fa nekk ñu ngi la ko yëgal di la ñaan nga na nga daan taxawee ak na nga daan ñëwee nga waaj ñëwaat woon rawatina waa section Dakar rawatina waa waa section Diourbel ci seen taxawaay ak mbooleem section yi nekk ci yeneen région yi fu ci nekk rek ñu ngi lay woo waaye di woo nag ñëpp ñi nga xam ne ñooy waa Touba di xamal ne ni mu ko waxee gan ñi moom waa Touba ko yor ak waa Ndindi kon nañ xam ne mboolooy ñëw mbooloo mi nag nañ leen teeru teral leen waxtaan ak ñoom ñu dajeek sëriñ bi ndax sëriñ bi incha allah ku ñëw danga ko fa fekk dana ànd ak ñun yendoo koog ñun nañ ko daan yendoo kon bu ko defee tamit am na waxtaan woo xam ne dana faam ci suba gi incha allah bu nit ñi ñëwee ci diggante bi ba avant sëriñ bi di agsi ba ñuy def siyaara bi sëñ Fallou njaay moom Serigne Cheikh Ndindi Ndiaye dana fa amal waxtaan ci jikkoy sunu turandoo muy Cheikh Mamadou Fadal kon nag ñu ngi ñaan ñëpp foo waay mën a nekk itam mu teewu si ko ci fekk ko di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp. waaye nag ñu ngi yëkkati kàddu gi rek ci turu sëñ Fallou di soññewaat ci bis bi ak liggéey bi ca Ndindi muy fukki fan ak ñaar ci weer yu nekk di samedi yii nu jëm bu desee incha allah ñaan Cheikh Abou Baraka mi nga xam ne. moom la fi yàlla teg ci palaasu Cheikh Mout Fadel te mat ko sëkk yàlla yàggal ko te wéral ko moo nga rakkam yëpp ak njabootu Xaadimu Rasuul gi jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne mooy Sëñ Tuubaa tey te mate ko sëkk te Sëñ Abo laaj ko ci ndigal ba mu joxe ko mu ñu di ko jëfe ca Ndindi Cheikh Mamour Anta Sali Mbàkke jëwriñu Sëñ Masamba ñu koy nuru baax ci tur Sëñ Abo ak njabootu Cheikh Massamba gépp ndax ñoom itam noo bokk liggéey bi ñu ngi soñ ñëpp rek woo turandooy Serigne fallu yi nga xam ne dañ leen tuddee Serigne Fallou ñu am xéewal ngëneel bañ tuddee nu ko tedd kooke nuy def ak cant feeñal suñu yéene ci suñ turandoo mu Cheikh Mout Fadal ñu ngi soñ ñëpp yoon wi nag li mu yaatu yàpp yaatu turandoo yëpp ngi fi ñu bari teew na ñu bari teewul ñu ngi teewaguñ ñu ngi leen di woo ku xam ne fii nekk rek ay sëñ Fallou ñoo fi teew yoo xam ne kenn ku nekk jëwriñ ngi ci liggéey bi ñu ngi leen di soññ di soññi sëñ Fallou yu tuut tànk yi ak seen waajur yi leen di boot ak sëñ Fallou yi nga xam ne ñu ngi ci restaurant yi ñoom ñëpp ni ko Alaaji Njaay waxee rek ñu ngi soñ ñëpp di seenu ñëpp ndax si amul faadal kat képp ku yàlla baaxee ñu tudde la ko war ngaa sant yàlla baax a baax war ngaa sant sa waajur wala ko tudde it ndax léegi laay wax nit ne ko day boroom xam-xam yi bari na lislaam it yàgg na yartu na lool waaye kuñ ma tudde ma yóbbu ko àjjana moo ngi day mag bàyyam day euh, ku ko waxoon te xamul yàlla dana jaaxal ñu bari waaye àgg ci yàlla ba sës ci rek ba noppi wax lii mosuma koo dégg fenn man cim nopp mosuma dégg kenn ko wax kon nag ku yàlla baaxe ca loole war ngaa sant yàlla bu baax kon ñi ngi soñ sëñ Fàllu yëpp rek nu teel a ñëw ca Ndindi te fonk bis bi te xam ne nit kat su amee lu baax te xam ko sant ca war waaye am ko te xamoo ko nag dara jëru ko sëñ Tuubaa ne fan la barakaat yi nag dafa am ku ne ko xam nga xar baaxa mu ne ko déedéet mu ne ko xotti baax nag mu ne ko déedéet moo ne ko xar baax mooy fexe ba xam waaju baax nga fexe ba waaju baax xam la mooy xar baax mu ne ko xotti baax na xam nga ko mu ne ko déedéet mu ne ko mooy fexe ba waaju baax jóg ngir yow mooy xotti baax kon nag suñ bis turandoo boobu ñoo nga cey woo ñëpp di ci séntu ñëpp bàyyiwun kenn nag góor ak jigéen mag ak ndaw dañ ko yemale turlooy sëñ Fallu it waaye ñëpp la ñu woo nag bàyyi wuñ ci kenn bàyyi wuñ ci genn kër ci yoonu Xaadimu Rasuul bàyyi wuñ ci genn kër ci Cheikh yi bàyyi ci wenn kër ci yoonu Murid ñu ngi woo ñëpp di séenu ñëpp ca Ndindi sëñ Fallu nag nee na mi ngi soññ ñëpp ñu góorgóorluwaat ci liggéey bii taxaw ci bu baax a baax xam ne sax jàmbaar ngeen ci waaye nag jàmbaar rek lañuy soññ nee nañ ko fonkaat te jëf ci baax te xam ne Cheikh Moudou Fadel kat boo ne ñokket benn jéego ngir moom mu dox téeméeri jéegu gàttandu la kooka nag jëm ca moom yomb na yàlla nu yàlla fayal nu ko te nu àgg ci bis ba càmm mbokk yi ñoo jote dégg kàddu yi sëriñ bi wax na nag soññe bi nga xam ne moom la sëñ Fallou soññe daj na kër yëpp bàyyiwul genn buntu kër nee na yemut sax ci buntu kër yi nga xam ne ñoo jaayante ak sëriñ bi waaye képp koy wax ashadu an laa ilaha illallah rek xam nga ne mbokkum sëñ Fallou nga sëñ fallu bokk woon na la kon nee na mi ngi woon ñëpp nag di ca xaasal magam di sëriñam di xaritam di sëriñ fàllu moom sëriñ basiiru di ci soññ itam sëriñ fàllu moom sëriñ sohaybu di ci soññ sëriñ fàllu moom cheikh abdul xaadir di ci soññ sëñ fàllu moom cheikh ibrahim moom sëriñ touba waaye di ci soññ nag ñeeyoo xare di sëñ fàllu moom sëñ mudu aminta fall ak mbooleem buntu kër yi cheikh ibra fall yëpp ak mbooleem buntu kër yi cheikh yëpp nee na mi ngi leen di soññ le douze lay doon incha allahu rabbi day amee ca ci teewaayu murid saadix ba di sëriñ Abo Baraka mi nga xam ne lépp lu turandoo yi masa dajale ba teg ko ci loxoom wan leen fam leen koy defal ci Cheikh Mamadou Fadal yàlla na yàlla may ko fan wu gudd ànd ak wér-gu-yaram te defal ko mbooleem njabootu Cheikh Mamadou Fadal gépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mooy fal fale tey ku ko neex mu fal la ngay fale kii mooy saabul kumala awal fadaayilu aadun ku dem moom xam ni kii saabul fadala